Macky Sall dañ ko faloon ngir fajj mer mais la taxone ñu fal ko lepp tay ji le walu gën ay tay ji le mbir yi gën wulé ñay lu nit mënon mënatu ko ñu ngi xokkatal nit ñi ñu ngi dal ci kaw nit ñi ñu ngi sét nu ñu def nit ñi ñu ngi sét nu ñu nërmeli nit ñi mais événement bi mujj c'est l'histoire du capitaine Touré capitaine Touré dàq nañu ko démissionné na nangul nañu ko ko génn na gendarmerie waaw ah, mais bëgg mu for ay xeer ak njabootam di ko lekk góorgóorlu na ba dem soutenir am statut am carrure am position mun a nekk jàngalekat dem di jàngale ci école ñu fexe ba génne ko fa fexe ba nërmeel ko fexe ba ñu dagg contrat am Macky moo bon Macky Sall moo bon ñi ànd ak Macky ñoo yées lan bëgg defar warta warta yegg fofu man lan lañ bëgg que le capitaine Touré dootul mënal boppam dara lan lañ bëgg pour que mu yor pot di taxaw ci feu rouge di mais budul dara le capitaine le capitaine Touré il a quand même servi le Sénégal c'est un officier de la gendarmerie c'est un Sénégalais un digne fils de ce pays quelqu'un qui s'est donné corps et âme qui a défendu le Sénégal autant ci que au niveau des missions internationales le Sénégal lui doit reconnaissance maintenant ñàkk déggoog moom ci ay gis-gis ñàkk ànd ak ci warul tax ñu le capitaine Touré bëgg def l'agneau du sacrifice les Sénégalais doivent dire non et tout simplement état d'esprit ñi ñu jiite day wane ni ñii ñu jiite ak ñi mu seen seen da ngay ma nërmel la soo àndul ak man ma néewal la doole yaa ngi koy wax léegi Mamadou yaa ngi koy wax léegi Bougane song nañu la Bougane sey business